askan wi dëkkee quartier Kër Niang jamono ji nekk ci tiis ak njàqare suñu diggante ak màggaluk Touba lu toll ci fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan moo ci des te ba nëga ni seeni kër ya ndox maa nga fa fees dell ñenn ci ñoom sax amuñu yenn néeg yoo xam ne ni fa lañu tëdde wala ay waañ ñu toggee loolu ca mbedd ma la ñuy daal lal def ko seeni waañ jamono ji nag ndaw ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fare ci parti réew mi te nekkee ci dëkk bu sell ju ji demoon ngir def ab visite boo xam ne ni dañu koy def ngir nemmeeku askan wa waaye di fësal projet d'assainissement yi nga xam ne ni nguur gu Sénégal daal fësal na ni amal na ko ci dëkk bu sell bi ci Touba di wax na sax gi nga xam ne nii projet yooyu la nasax na ko. moo Modou Sall ne leer président coordonnateur des jeunes départemental de Mbacké commune Touba. Euh, dañu ñëwoon fii tey seet si ñi nga xam ni ñoom ñoo yàqule ci taw bu mujj bi nga xam ni moo am li ko waral lépp nag du lenn lu dul moteur pompage bi nga xamante ni bii moo nekk fii. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu Modou Sall Nayreer mi nga xam ne moo jiitee ndawi parti bi di réew mi ci dëkk bu sell bi di Touba ma ngay fësal ne daal li nga xam ne moom moo jëm ci projet d'assainissement boobu li daanaka lu ëpp ca koppar ya dañu koo luubal waaye tam muy fësal ne bassin bii di Kër Ñang li nga xam ne moom la ñu koy utiliser jamono ji taxu ko woon a jóg ndax ndox yi nga xam ne moom moo jógee ci biir centre ville bi di fa jëm daanaka dafa ëpp doole li nga xam ne moom moo di pompe bi nekkee ci basin Kër Ñang ba tax mu indil ay jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo parce que bassin bi nekk fii créé wuñ ko woon pour ndoxum Touba bépp di fi daje dañ ko wutoon pour ndoxu jumaa ji di fi daje ñu koy évacuer mais léegi Touba ni mu toll nekk deuxième ville li fiy wàcc ci ndox ñu jëlal ko bassin bii nga xamante ni bii bassin bu tuuti bii nga xamante ni lim mën a jël tuuti la ndoxum jumaa ji sax mënu ko woon a jël di jël ndoxum Touba gépp xam nga ni loolu buñ ko defee loraange liy jur ci population bi parce que gis ngeen ko population fi nekk bakkan sax mën na fee mën na fee wadd yàllaa ci def sutura parce que heure bi mu taw tàmbali 3 heures du matin di taw ba 8 heures suba muy taw di sotti ndox bassin bi fees ndox mi wàcc nit ñi dugg ci biir seen dund yi nit ñi fi nekkoon xale yi jur yëpp yàqu kon dèjà war nañu xam ni lii jot na pour ñu jëlee ko Kër Niang te li gën a garaaw mooy feebar yi am Touba yëpp ci bassin bii lay jóge parce que yoo fi yoo wu fi màgg bañ teg tàggat la ba ba di la yóbbu fenn rek ci bassin bi ci nga ci ci lañ la ci lañ la tàggate yooyu nekk Touba yëpp ak yooyu nekk ci réew mi yëpp ci bassin bi la nekk parce que bassin bi amul kubéer te it lii mën nañ ko parawaar parce que waxtu wu nekk nga dégg ni ñi ngi jël ay milliards di ko def ci inondation Touba fan la féete kon li mooy wane ni li ñuy wax ay wax lay doon yu ñuy communiquer mais amul ñun nag nekkuñ fi pour kii nekkuñ fi quoi pour nekk mooy pour Touba pour population Touba parce que bu population bi nekkee ci jàmm ñu nekk ci jàmm bu population bi nekkul ci jàmm duñ nekk ci jàmm ñun nag duñ fi di communiquer ay slogan yoo xam ne li ñuy communiquer ak a defi slogan dara du ci dëgg loolu baaxut ay nit boo leen yoree ñu wóolu la fal la jël am réew dénk la ko jël seen biir si lépp dénk la ko war nga leen teg ci ay conditions yu baax waaye waroon nag rek ba saa foo leen soxlaa dikk di gas ay conditions ngi ciy def 3 milliards te nga ciy def du dara bërki démb fii teg fi xeer gasub tiwo ni def nañ ci milliards te loolu lépp dara amu ci xam nga ne 3 milliards bu ñu ko fi defoon dans 2 mois lii am nii du am kon loolu mooy wane ne 3 milliards yooyu ñu defoon ne def nañ ko ci conduite bi ñu jëlee woon Kër Ñang pour yóbbu ko Daaru Manaan bu bees bi kon ñañ joxoon marché ba ak ñi jox marché ba yoon war leen a topp parce que ñu ngi population Sénégal parce que Tigo bi banaas leen nañ ko bu yàgg luñ ciy xaar war joxe 10 milliards ñu toog ba ba maanaam xam kon ñañ jox marché bi ak ñi leen ko jox ak ke ko jox war nañ koo topp parce que loolu dafa mel ni maanaam ñoom population bi ñor leen seen poos leen ñor marché boo ci jox nit mu jël marché bi xool na ko neex mu liggéeyee ko la jërës mu def ci poosam ni ceel bu waxtu jotee ñu dikk gurgur la ni la ñëwal ñu nga sànneel ñu carte am leen fulla am leen fayda seen carte yi bu leen ko sànnil kenn koo xam ni juróomi at a ngi nii nag leen di digte lam leen parce que on est en politique nekk nañu politique politique bu baax parce que bu wax politique pour jëriñ sa réew la wax mais waxuñ pour jëriñ sa bopp. kër ñag nag sonn nañ ci bassin kër ñag nag sonn nañ ci digg yi sonn nañ ci naxa yi sonn di defal nangam parce que programme bi def baaxul programme bi def bu fekkante baax na 10 milliards war fexe ba Touba ndox sax dootu taat ci mbedd